mang lay nuyu maa ngi lay fay bu baax di la ziar di la delloo njëkkal ci teewaay bi nga ñëw teew ci fii seet si ma fii ci kër Mbaye faam voilà nuyoo bi am na solo mais nag Aïda moom timidul damaa bëgg ñu def émission bu neex parce que gis nga coono yi sama caméraman yi daj pour ñu ñëw fii ci kër Mbaye Fall donc dama bëgg ñu def émission bu neex ñu waxtaan sa jaar-jaar comme ni ma ko annoncé woon ci début yi euh, Aïda ñu gën la xam ci série bu mag boobu di góorgóorlu tey Aïda mën nañ xam rek lan moo la dugal ci li nga xamante ne moo di aar waa aar nag dama juddu fekk sama papa nekk ci aar mm-hmm. ngénte ma xaalisu aar mm-hmm. kon aar rek laa war a def ma ñëw fekk sama papa nekk ci aar ndax man bi may nekk ci aar sax sama papa yëgu ko sama papa spectacle la xamee ne maa ngi ci aar hmm? waaw parce que dama nekkoon si benn troupe bu doomu kii magu Ndey Mbuur Njaay rakku Ndey Mbuur Njaay Saliou Njaay si benn troubam lañ nekkoon muy troupe déggoo muy théâtre nawetaan yi ba benn jour ñu am spectacle duuta sec ñoom ñu invité woon sama ñoom pap artistes yu mag yi ñu ñëw teew ma jékki-jékki rek génn ci kaw scène bi gis sam pap sam la xamee ne maa ngi dugg ci aar hmm. waaw loolu moo ma dugal ci aar ba tey loolu yàgg na hmm. loolu yàgg na boobu maa ngi am ay neuf ans yooyu dix ans laa commencé dugg ci aar hmm. loolu yàgg na neuf ans nga daal di dugg ci aar comme ni ma ko annoncé woon waaye juróom bu góor ñëpp xam ko ci aar mu di Sidy Niang dinañ ci gën a xuus bu émission bi gënee dem neuf ans nga dugg ko ci aar mun nañ xam tey ji euh, série yi nga xamante ne nga ko parce que ñu ngi la gën a ràññee ci série boobu di góorgóorlu mm-hmm. mais avant góorgóorlu est-ce que def nga yeneen série yu mag euh, comme ni ñu xamee góorgóorlu déedéet à part góorgóorlu man góorgóorlu laa la la laa njëkk a tourné ndax sam papa moom fekkoon maa ngi woon suñu kër mu woo ma ne ma solo yére nga ñëw fekk ma fi mana ne ko lu xew mu ma dafa am benn série bu ñu la bëgg a boole waaw boo demee nag na nga ko waaw sila la ma jeesi yóbbu ma muy góorgóorlu boobu première série boobu laa tourné ci gor golu boobu bobu ma gën a nekk xale man ak Modou waaw. voilà mo mu jouer nak rôle bu am solo bobu mu nekkon ci doomu sen sen mu mhm. jouer ci serie bi nak cartonné un peu mën nañ xam tay ji eh, def nga ar sa papa ko xam xam ne na daaray koccu mu def lu bari bex sa ñu bëri mhm. tey nga jik jik sa rek mu wolé ci serie wolé ci casting sa papa di théâtre kat woo la nga dem rek un peu casting bi est-ce que difficile lul woon da nga dem rek ñu jël la wala da nga def sa premier test après ñu ne la dinañ la woo. non non foofu casting amu fa sax. Mhm. casting amu fa parce que dañ maa woo rek ma ñëw ci jour bi lañ ma woo ci jour bila laa joué. Mhm. waaw ci jour bi lañ ma woo ci jour bi laa joué. Mhm. casting amu fa waaw. nga nekk ci doomu seen rek euh, ci xol bi nga xamante ne joué ko ci. waaw boobu maa ngi ciy joué rôle Aïda. Aïda xale bu xale bu yaru bi. ma doon eh, doomu sën ak Baye Eli koy nuyu bu baax sama yaay jooju seen càlli dem seen kooku nee naa la moo ma jàppale ba tey jii kooku kooku kooku dama koy gërëm di ko sant bu baax waaw. waaw loolu dañ koo dëggal ba tey kooku kaas sax buy jënd daf may woo téléphone ay da kay jëndal ma kaas kooku sama yaay la sama yaay xol la ba tey jii nee naa la Sidi Niang dëddu na waaye moom moo ñu fi fekk di ñu woo téléphone di ñu nemmeeku. waaw mm-hmm. moom Daaro Thiam Père Abdallah ñooñu duñ leen fàtte moom. nga wax Aïda dafa mel ni yenn artistes yi déedéet parce que man maa ngi ci aar bi maa ngi ci maa ma ma gëj naa joué trop waaye maa ngi suivre mm-hmm. waaw sama papa benn benn yoon lañ ko lañ ko sargal te ñu ko sargal ñooñu ñoom ñoom kii la woon fële Duta Seck. te biñ koy sargal man ak sama ñoom yaay ñii ñëpp ñoo ànd ñu sargal ko mais à part ñooñu du ma dégg tooguma si Sidi dégg kenn Sidi ñaan waaw bu ñuy lim ñi ñi ñi gaañu ñu sax du ma gis ñu boole sam pap waaw. doo gis daal maanaam ñu rendre ko hommage wala yenn yenn comédien yi toog bu tudd ko wala ñu am lu ñu xewle boole ko ci te mu nekkoon ci kon am lu bari loo xamante ne def na ko ci théâtre nekkoon accord ko solo déedéet gis ba ci daaray ko ci aussi doo di nga leen dégg yenn membre yi fi des déedéet bu dul pa papa a Demba Lam père Abdallah ñooñu laa doon dégg ñuy tudd sam pap à part ñooñu ah père Lamine Ndiaye dégguma keneen ku ci ku tudd sam pap waaw mënuma leen wax ñàkk rek ku ci nekk rek sa xel fi mu toll rek loolu nga def waaw ku ci nekk sa xel fu mu toll loolu nga def waaye ña ña nga xamante ne Sidi Niang mu doon jëflanteeg ñoom ci biir kaw aar bi mu ay ñoom Daaro Thiam ñoo ñëpp ñu ngi leen di dégg man Daaro bu ma ko gisee damay damay damay kontaan damay kontaan ndax da damay nemmeeku chaque jour damay woo téléphone ba léegi si mooy ju sama ñaanu papa yi envoyé ma photo waaw seen même chose dañ koy ñaanal rek fu mu tëdd yàlla xare ko àjjana te yéexi ñu rek ñun ñi di njabootam ñu koy ñaanal chaque année comme nii rek waaw aar bi moom dégg ma fu ñuy tuddee sama papa di ko ci boole ci dara waaw. te loolu na la. waaw naqari na ma trop parce que da ko fee liggéey sama papa léppam aar la ko def léppam aar sama papa danaan danaan ànd nit sax tournage fayeku salaire jël salaire bi jox ko artistes yi. moom mu ñibbisee loxo kase ci kër gi loolu sam papa daan def ñibbiseeg loxo kase danaan ànd ak ay artistes joué ji ba pare jël salaire bi jox leen ko ñibbiseeg loxo kase loolu sam papa da daan def tey bu dëddoo duñ ko sax fàttaliku a tey la am dix ans ci suuf duñu toog sax ba nga dégg tey la Sidi Niang tey lañ koy ñaanal waaye sant yàlla la. ndax njabootam gi ñun duñ ko fàtte mukk parce que liggéeyal nañu tay man suma togué ba bëgg aata ar rek boy nek sama dérèt yalla ak sam papa ji tax mais dañ ko waron di ko lool rek moma xawa metti wa des fois dama wa des fois dama nan bayina ar mais ci sama dérèt la nek sa papa tey mën nañ xam dañu euh, jékki bu titaa rek dégg si feebar quelque temps nañ xam ban feebar tey jii moo ko daloon ba tëral ko ba ni muy génnee àdduna yàlla moo ñëw rek waaye gisuñu benn feebar ci yaramam ba mu gaañoo yàlla nag bu ñëwee ñëw na waaye gisuñu benn feebar noo tëddul woon sax sama papa ci kaw feebaram sax da dem tournage artiste si xam na li may wax ci kaw feebaram sax da doon dem tournage bu ñëwee gudd fii ñun ñëppay sonn day onk ba bësat waaye bu xëyee day dellu tournage parce que loolu moo koy dundal waaye yàlla moo ñëw rek xëy na loolu laa mën a wax. amul benn feebar bu ñu génnee si yaramam. mais dégg nañ ne olof la. doon dégg la loolu yàlla moo koy def ni ci ci nit rek aar moo doy waar rek léegi ñun dañ koy teg ci lépp ci loxo yàlla rek lépp dañ koy teg ci loxo yàlla aar moo doy waar mhm. waaw. Euh, lu bari lay fàttaliku ci moom muy am taalibeem ak mën a joxe ak am sutura am taalibe mën a joxe ak am sutura sama papa daraan onze jours dama ànd ak moom dem joué ji joué ji benn euh, benn korno bof ndeysaan bu ñu doon liggéey tëngéej ñu fay ñu xaalis bi ñu fayee xaalis sama papa dañoo egsi ba si wari bi rek mu ne ma may ma ma wàcc na tax bi may ma ma wàcc dafa am lu may jël fi taxi bi may ko mu dugg jël xaalis bi ñu liggéey ñun man moom envoyé ko waa daara ja muy papa Ibou waa daara ji waa kër sëñ affaire yi ba ñu egsi ci kër gi ma ne ko papa jox ma sama xaalis mu ne ma daara ja amuñu café amuñu suukar ñoom laa ko envoyé te boobu noonu amuñu xëy lu ñu xëy ñun togg añ suba moom yàlla loolu la ko daan defal loolu lay fàttaliku ci moom mooy lu muy day day defal te kenn du ko yëg day day day day dimbali doomu aadama ñun sam papa mu gaañoo lañ xam kan mooy Sidi Ñang ñun duñ ko yëg mu nekk ku bëgg njaboot sama papa dafa bëgg njaboot di daw rek ndax njaboot ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana tey yéexe ñu ñu koy ñaanal chaque année tey fukki at ci suuf ممن اللي يعني صحنا خليدون قد جاوان إيه فاست بين بعد بوش تمومك يعني يعني يعني طول اي خيول دونك من نجنة سبابة اسي دفل دفل دفل دفل سوتن يشتو لبري سوكو عربي نحمن تاني تايجي مومنا نيك نخدف نوفا يعني نجوي سيري سيري بري yaa ngi wax sax sànq si say wax ne joué nga ba joué ci madame te loolu xam série xam ne série bu cartonné mhm. la bu yàgg la mhm. donc tey image ci sa bopp euh, man man sama papa ma su ma ko xalaatee damay tuur xéewal na sama papa du ma ne ma sama papa doomam yëpp ko jege ku mu wéetal nga ne kii man la gën a bëgg loolu sama sama sama jikko papa la mhm. dafa nekkoon nag sama xarit sama sama àndandoo man dama ko demoon ba koy woowee ay biir jox laa koy woowee ay fuumalaat ay ay turu rappeur laa ko doon tooñe des fois damay dem spectacle ñëw ne ko ah papa toj naa ne ma defoo fa tuus ñu mbagal mbalaka mbalagante fii nii ci kër gi mu nekk doomam yëpp ay xaritam lañ doomam yëpp ay xaritam kenn du laal doomam jege woon naa ko torop nag ndax ñoo bokk aar buñ doon def ñu bokk aar buñ doon def fu mu dégg lii na ma demal fële man tamit damay jékki-jékki ñun kër gi bu théâtre commencé sax kenn du seetaana noog man ak sam ndax dañuy nekk di nekk di wax ay faux raccord ak xoola kii li mu def xoola kii li mu sama yaay danaan génn leen saal bi ba ñu pare ñoom moom doomam yëpp ay xaritam lañ ñi ko ñëpp a ko jege sama papa ku nga ne kii la gën a bëgg moom doom yëpp la jël taf ci xolam doom yëpp lay waxal man fi ma doon sëy dama daan jékki-jékki rek sama papa woo ma téléphone na ma génnal ndekete mu ci bitik suma génnee mun ne ma am téyel li yokk sa dépense doom yi sëy yëpp noonu la leen di defal dangay ngay jékki-jékki rek mu yónnee la xaalis na la da jàppale ba jàppale sa néegu sëy kooku mooy sama papa waaw dama doon dama sëy yoroon ay doom nekkoon ci sama ay doom yàlla def mu weer di tamit ma génnoon senegal nag tuuti ma génnoon Sénégal dem jàng ji tamit laa mën a wax dem utiwaat tuuti xam-xam ma defoon feebaroon fa tamit yàlla def ma bi ma ñibbisee si jàmm nag dafa fekk maa ngi feebar sax parce que maa defoon foofu maa ngi feebar ma doon maa ngi woon Maroc maa ngi woon Maroc yàgg naa fa def naa fa six ans presque naa fa six ans presque. accident dama doon liggéey kër naa dama daanu dama daanu si escalier mhm. laa defoon ma doon fajuwaale ba tane doog a ñibbisiwaat Sénégal fii. Mm-hmm. mën na ne ñibbisi nga actuellement. waa ñibbisi naa mm-hmm. ñibbisi naa. Mm-hmm. maa ngi Sénégal. mais Aïda bi ngay jóg góorgóorlu yàgg na mën nañ ne boobaat léegi lu bëri raw na ci lu bëri tey ji xew na ci mën nañu léegi théâtre bi ngeen doon def yéen léegi raar na léegi ay maison de production ñoo am est-ce que un peu amul loola raw lu bari loo xamante ne raw na la. léegi ma ne la xaalisu aar lañ ma ngénte ba dara raw raw ma ku ma woo ma war a tourner ma génne li ne ci man. ndax amna lu ne ci man waaw. est-ce que yaa dox ay jéego pour dem ci maison de production yi ak yooyu pour waxtan ak ñom aussi. non non non non doxuma ben jéego parce que man bima ma dama am sama ben frère Moustapha mm-hmm. man ak mom ñoo doon ànd di di tourner ji di di def ay spectacle di dekk ci ay terrasse sax lañ daan répéter ma ñëw mu japp ma ci loxo yobuma Ramatu TV Ramatu TV tam ma fekk fa sama ben frère label la laay. mu ñëw boole ma muy équipe boo xamante ne ay xale rek ñoo fa nekk te bëgg liggéey ma àndandoo ak ñoom di liggéey mm-hmm. waaw. Mm-hmm. mais aussi xam nga maison de production yi tey yow da nga tukki woon. Mm-hmm. ñu 15 ans après kenn du naatable li nga fi def ak li fi sa papa def mais xëy na mën nga dox ay jéego dem ci ñoom wala nga ay contact dem ci ñoom parce que aar ngay def pour tey ji bu ñu la soxlaa ñu xam fan la ñuy jaaree tamit. waaw mais booy dem da ngay xam fi ngay dem. waaw booy dem da ngay xam fi ngay dem. tey jii li tax ngeen ñëw seet si ma ma nangu sax mm-hmm. pour ñëpp xam ne Aida mu ngi fi waa ñibbisi naa mm-hmm. maa ngi fi mm-hmm. loolu moo tax mais doxuma benn jéego daw ma ci kenn wax dëgg yàlla waaw. mais maison de production bu la woo pare nga ko allah boo wax naa la xaalisu aar lañ ma ngeen tey li ma mën ba tey man ko mën waaw. Aida yaa ngi seetaan série yi daw actuellement ci maison de maa ngi seetaan yëpp maa ngi seetaan yëpp. man yi nga xamante ne am na ci aar aar yàqu na aar yàquwul maison de production gis nañ ne léegi ku jóg rek euh, xees wala nga am benn melokaan rek ñu dugal la ci série ngay joué ak yooyu xam ko tey boo seetaan lan lan joxe bu critique boo xamante ne waaw waaw loolu des fois dalay metti xam nga aaru démb aaru tey bokkul mm-hmm. aaru dañ koy jàng soxlawuñ sax mille francs mais tey aaru tey jii mooy moo indi million yi mm-hmm. nga ma bu baax moo indi million yi millions yi nag li koy indi mooy mooy production bi bi bi soxla ku xees ki moom mooy jëli ku xees ki waaye balaa mu koy tourner dina sonn balaa muy mokkal benn scénario dina sonn mais tey bu fekkoon benn ayda tegu fële wala mu fekk benn daaru fële wala mu fekk fee benn dikkoon wala keneen ak keneen mu ne la kaay jarul mu lay jox scénario na la expliquer rek. waaw loo jàngu doo ko tari waaw moo ñoom. yàlla moo leen ñoom si loolu lañ tombé ñun mënuñu si dara. donc aar yàqu na. Ah, ah, yàquwul ba tey ndax ñi ñi ñi ñi daan tourné ba tey ñu ngi tourné mais aaru démb ak aaru tey ñoo mais aar yàquwul aar dara mënu ko yàq. Hmm. déedéet xale yi ak nuisette yàquñu seen aar. moo tax ma la aar dara mënu aaru démb ak aaru tey moo bokkul il faut nga dégg fi may waxee. Hmm. aaru démb ak aaru tey moo bokkul aaru démb sañoo sax sa sër di feeñ bi nga jiital di feeñ mais aaru démb ak aaru tey bokkul ah. Mhm. donc daal pare nga pour liggéey ak maison de production yëpp bu ñu la woowee. incha allah ku ma woo ma dem. da Aïda de retour. <laughs> Aïda de retour maa ngi nii. <laughs> Euh, nga bokk aussi ci famille Gawla. Mhm. tey ku ñëw Medina famille kër nekkal Mame Marie Sène ñu nga bokk fa. waaw Mame Marie sama maam la. Mhm. nah dudu mata sen, mi jur sama ya, ak mam Mari sen mi jur nday sonambu ño bok ñu bok ben keur bu ñu Mari man maa ko japp ci loxo di yobu yóbbu Tiwaawan Youssou Ndour duñu jox di ma booleeg pulla koku sama mam la man ñooñ damaa bokkal ñoom benn deret man hmm. nañ xam relation yi ngeen am famille bo, ndax ñu ngi leen di jàppale waaw comme famille rek xam nga fu mu toll nii Youssou Ndour amu jot waaye man famille bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi déggante famille bi ñu ngi ñu ngi demalante mm-hmm. waaw ñu ngi demalante. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Aïda ñu gis ne kër gi nekk Medina bari woon na coow ñu ne Youssou Ndour da ko jënd dafa am ñu mu jox xaalis sa bokk famille boobu tey jii looy leeral ci loolu dafa